jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi soo tuddee juif ak yahood sa xel dem ca waa bani Israël waaye yaakaar naa euh, sëriñ bi nee na man yor naa seet goo xamante ni seetu juif la juif yi ñoo ko daan seetee ci nen yi nag la koy seet Ousmane Sonko ak xale yi manifestation bi mbokk yi temps yi dëkk bi euh, jaxasoo na danañ ci dugg ànd ci ay leeral sëñ Màkkam tal mu karamatu jaxate kilifa la borom xam-xam te ñaankatu yàlla la sëñ bi euh, dama lay bàyyi nga nuyoog askanu ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi. ok baada auzu billahi a seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi toroxlul borom bi subhaanahu wa taala di toog ci pàkkam bi du jublu penkam bu tedd bi di ko wax ni jaajëfi yàlla di ko wax ni ko yaay ki nga xam ne boo nee déet waawi kenn du lore waaye boo nee waaw itam déeti kenn du jariñe kon yàlla benn jaam bu bu bu bu xeeb bu mën a di boo xam ni boo xamaloon ay moroom yi jaamam li nekk moom duñ ko diglu ba koy topp moo àndaat ak ay moroomi jaamam di lay wax ni lépp loo am ci lu baax na nga ko sotti ci kaw Seydina Muhammad mi nga xam ne bu amee kenn du ñàkk waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ah, tey euh, nga ne ma nen yi seet la koo xamante ni seetu juif te day gis euh, yahudi la moo tax euh, seeni bagage ba tey fi ñu toll ak ni mu yàggee ñenn ci borom xam-xam di ko utiliser. waaw xam nga boo xoolee waa bani Israël la yaakaar naa ne kenn dàqu leen def lu ñuy wax mystique mm-hmm. ci ñoom la fekk baax ñoom bañ nañ ko ba. aw nag la ca kaw ndodd ma rek la ñuy lekk waaye la ca duñ ko lekk ngir xam secret ah. kon dafa mel ni ñoom seet ci ñoom la fekk baax ah. man fii ma toog damay seetal ñoo xam ne dégguñ olof ay tubaab lañ da nga ca am lu leer ci kanam insha allah rabbi ne man ndax xam-xam lu ñuy jàng la du doon lu ñuy dond yàlla moo ne wa allama aadama lasmaa kullaha ila axiril aaya waaye dafa bokk ca lay tegtale ni maanaam seet lu am la bu ñu delloo ci aaya bi yàlla wax ni suuratul baqara saaru baqara la tax mu wàcc bu ñu demee ci asbaabu nusul danañ xam ne seet lu am la ñoom aw nag dafa am kuréel nit ñu di ko seet ci aw nag lañ ko xamee nag wa lañ rey Moussa def ci lam ci def nag wa bañ jëlee dara ca nag wa dóor ko ka dee mm-hmm. koo ko dekk ni diwoom a rey kon seet am na mm-hmm. léegi nen yi nag li ma ci njëkk wax li ci gën a tuuti mooy képp ku ma ci seetal mën naa la wax ñaata fan moo la tere faatu ah. te su ma la ko waxee ba yeboo seen mbokk waajal la dañ ciy xam ba xam nit ki suba dañ lay tëj kaso nen yi dañ ciy seet ba gis nit ki ni ko suba ngay dugg ci abiyu tukki wala suba lañ lay tëj wala suba ngay faatu wala suba ngay feebar damay woo nit léegi ni ko génneel sarax sàngam wala mu woo léegi ni ko sullil ci sa buntu kër nanga fa mu dem sulli fekk fa ab liggéey te fekk nen yi moo ñu xamal kon nen yi képp koo xam ne seet képp moo la tax a jug tam doon seet gu leer te wóor mën jaww ji nga ne secret boobu doo ko liggéey te liggéeyee ko ci lu dul jaww ji maanaam avion tey tax nit jël la yóbbu la Maroc nga am liggéey boo ko fa doon liggéeyee waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yàlla danay bu ñu la defalee xéewal bu xéewal jàllee na sant kon dañuy sant yàlla balaa ñun dem waaye dama ni képp koo xam ne da ngaa ne ci xëccoo wala nga ne ci xeex wala nga soxla poste bu mu mën a ndéem lu doomu aadama war a yor la ñu la liggéeyalee secret boobu nga xam ne ci avion lañ koy liggéey kenn mënut fexe ba doo bëgg loolu preuve bi mooy kii nga xam ne moom yóbbu woon ma tukki nit la koo xam ni mi ngi Amérique nit ku ñuul la fii ci Sénégal dëkk du ma tudd turam alal ju nekk am na ko fii ci dëkk bi ay société am na fi ak lu ne ay mbokkam xabtal ko mu génn réew ma def fa fukki at mënut a tànkam fii saa bu daggee billet ba war a ñibbis day def accident fukki at yu at mu jot bu daggee billet ba jëm aéroport ngir ñibbi si ma nga Amérique bala agsi rek dana def accident wala oto bi tàkk bi ma wooye wax ma ko ma ne ko loolu su la neexee nga ñibbisi ci weer wi mu ne ma nan la ñuy def ma ne ko boo xam ne ci avion laa koy liggéeyee soo ma daggalee billet nangami waxtu ma def ko ci avion bu ma dikkee nga ñibbisi bi may dagg billet mi ngi fii ci réew mi duñu bi nga xam ne fa laa jaar bi may dem bi may dem fekk naa waa compagnie bi wàcc waaye jàpp nañ ci ba ma a mm. boo xam ne képp koo xam ne bëgg nga ñu jëflante ci yow bu jokkoo yow incha allahu rabbi looloo mën a jot ak aajo joo mën a am ci adduna am na yaakaar ne ca biir semaine bi la aajo jooju dafa ju ci kàttanu yàlla euh, xabtal tamit nekk na mbir moo xamante ni dégg naa da nga yëngu mbirum xabtal waa dégg damay laaj ana lan moo tax boo bokkee ci famille am alal say mbokk ñu du ana lan moo tax boo nekkee cib daayira am fa tur ñu ñu du amee waaye lan moo tax boo nekkee ci société yor ndombal tànk ñu ñu la loolu du fi amee lan moo tax itam boo nekkee ci yéew am fa taraanga nit ñi la du fi amee kon lan moo tax sa mbokk bu amee teraanga donte yaa ngi wane ak cant waaye fekk sa xol a ngay xëtt ci biir ngiruk añaan yàlla nee na am yaxsuduna naasi ala ma aatahum allahu min fadlihi faqad aatayna ala ibrahima alkitaaba wal hikma wa aataynahum mulkan azim ndax da ngeen di añaane ñi nga xam ne maa leen jox la ma leen jox yàlla nee na nag ñooña mooy ñi nga xam ne in tusibka hasanatun tasuhum ku iñaan niñ koy xamee mooy saa boo amee lu baax xolam xëtt ji boo solo yëru bu rafet sax muy bëgg a dee la musiba dalee ñu kontaan ca ñooñu nag yàlla nee na xul mu'tu bi ghaysikum dee leen waaye dama ne képp koo xam dañ laa xabtal moo xam sa borom kër lañ dox sa diggante mu xabtal la mu bàyyi la wala ñu xabtal la ba nga bàyyi sa poste ba ngay liggéey wala ñu xabtal la ba nga génn sam réew bàyyi say mbokk wala nga tukki ñu naawtal la mënatoo ñibbisi moo xam sa wujj la ko def wala sa goro wala say njëkke li wér te wóor danañ jël dereti ginaar gu ñuul. bind ci ay tur yoo xam ni turu ginne la. bu soobee yàlla boo ko suulee ci sa bunt kër ga ka la liggéeyoon dana faatu te kañ naawtal balaa bis baa del si dara wér ci kàttanu yàlla nga mbaaxam loolu lañ ci mën a leer incha allahu taala. ay su numéro téléphone Serigne Makka Jaxate mi ngi noonu affiché ci écran bi képp ku ko ci woo rek di nga ko jot Serigne Makka euh, xam-xamu euh, ba tey nopp nopp Serigne si foofee laa jàpp ne foofee la ñuy mënantee te nopp Serigne si foofee la ñuy rawantee. waaw xam nga lii benn it la boo xam ne dama koy nëbb ndax sëriñ si dañuy sàcc secret te kenn du ko sàcc ñetti noob rek laay taxaw jàll man li ma yor ci noob du jeex noob dama koy génne par damay génne noob yu bees ndax li ma ci yor mënuma ko mënuma ko mënuma ko waaye dama ne képp koo xam ni bindal naa la lii da koy def ci këll bi ba pare nga wut silib bu bees tàq nga sol ko ñetti fan boo silib bu bees tàq ngay sol ñetti fan doo ko sumi boo paree nga def ko ci këll bi bàyyi ko ci saafara si 30 minutes boo paree nga génne silib bi weñ ko ndox moomu génnee ci weñit di nga def ko ci biteel nga wut wëttéen wëttéen boo xam ni da ngay séy ak sa borom kër ñett yoon yoo xam ne bi ngay fompoo boo paree nga ko ba mu doon ko ci biteel bi ko ñaam jooda la boo ne ko toogal mu toog boo ne ko taxawal mu taxaw tubaab wala mu doon koo xam ne xam nga xam am xam lu am la te man li may noob lu la bari na fii ay bari na fii ay jigéen ñoo xam ne lañ am ci seen borom kër ginnaaw yàlla maa ngi ñoo ma tax te sama noob du génn semaine bi ma ko def man nag kii maanaam ki ma doyloo laay waxal ku ma doyloo mën waxuma yow waaye li ma bëgg wax mooy noob gi nga xam ne kii ab tubaab la benn ngeen si ñëwoon mariage nga am kayit bi nga bëggee renouveler fekk ngeen tas nunguut laa defal kayit wala nga am tubaab bëgg mu topp la wala koo xam ne du ab julit noob gi ñu lay defal bu ñu paree am mbaam lañ ko jox mu naan ko am mbaam lañ ko jox mu naan ko ci bis bi lala tubaab bi revenir ak fu mu mën a nekk ci àdduna wala kañuy noob yow mi nga xam ne mënoo am mbaam dañ lay jëndal mbaam mi fii buñ paree jox ko saafara si mu naan ko ñu bàyyi mbaam mi mu dem loolu lañ ci mën a leer incha allahu taala bi yàlla. tey ku nekk bitim réew am problème mu këyit sëñ Màkka fan nga mën a def euh, ak loo mën a jaar ci alxuraan wala moo xam xaatim wala sax ba ci kurus mën koo dimbali ba mu ñibbisi ba gis ay mbokkam. képp koo xam ne da bëgg këyit bu fekkee jigéen nga. da may jox xar mu ñuul doon jigéen. ma rendi ko sarax ko jël der ba. bind ca la ma cay bind jox la ko nga takk ko weer woo da ci am këyit boo ci amul këyit ma bàyyi ñaan képp koo xam ne góor nga bëgg kayit wutal gàtt bu ñuul bu matum tudd ma rendi ko def ko fukki saam ak jël gàtt ba bindal la tur ya bindal ay tur rawxaan du du alxuraan man weesu naa foofu maa ngi ci feneen ndax xam-xam dafa mi ngi ci kaw mi ngi ci alxuraan ngi ca wala yatuuna bi mislihi walaw fi atal quran min kulli masal yàlla nee na exemple misaal naa ko ci alxuraan mais yéen a déggut mais nit ki lépp lu bëgg mi ngi ci kon yow mi nga xam ne góor nga bëgg këyit wutal gàtt bu ñuul ñu saraxe ko ma jël derba defal la ca téere bi nga takk ko ca weer wa nga am këyit ci kàttanu yàlla ak mbaaxam loolu lañ ci mën a leeral ak dégg allahu taala. tey am na ñoo xamante ni dañuy am alal wërsëg yoo mën a leen mais seen am-am du dem dañoo jàpp seen am-am du taxaw dañoo jàpp sax ne dañoo yàq seen loxo yi. xam nga ku noonu dañ koy dugal xalwatu bari na sëriñ soo xam ne ñu ngi wax ci wàllum xalwatu te xalwatu dafa am ay sart xalwatu ki koy dugg bisub dimanche la ko mën a dugg ci guddi force la loolu sart la boo ko deful xalwatu bi du baax amul kenn ku mën a weddi li may wax nañ dem ci téere bi ñuy wax ashifaau rabbaaniyu fii tibbi rawaan Bayruut waa Bayruut ñoo bind téere boobu boo fa demee da nga fekk li may wax munta ñàkk nga dugg bisub dimanche ci gudd la xalwatu bi tàmbali ci kaw loolu lu wax ngay sol ba ko ñetteel mooy doo lekk lu am ruux wa maa xaraja fiiha ak lu génnee ci moom ak melx mooy xorom li arab arab mm-hmm. mooy mm-hmm. a a duggaaleeg juróom-ñaari xam ne bu ci nekk ayatul kursi nga ciy bind benn ba ci sijaada nga koy teg benn bi nga teg ko ci koñu néeg bi mm-hmm. ngir rawxaan bi lay dikkal buy ñëw looloo koy aar ba du la mën a jommal ndax bari na ñuy dugg xalwatu du def kon dañoo amul muslay boobu waaye nag bu fekkee ne yaa duggee ci sóoratu jinn rawxaani suuratul jinni mi ngi tudd Aba Youssouf nit la ku gàtt ku weex takarago gudd te mi ngi am juróom-ñaari garde corps te moom buy ñëw fas lay war kooku bu dikkee moo lay wax lii faj aaju ku ngay dugal xalwatu mm-hmm. kon yow mi nga xam ne sa alal loo yor mu dem wala nga dem fayat amoon nga société wala amoon nga xaalis nit ñi déggoon nañ la amoon nga tur nga jékki-jékki kenn déggatu la damay wax ne bu mën a duggee la xalwatu ca weer wa te ngay delluwaat fa nga nekkoon te dootoo fa wàcc bi ilaa yomi diin kon loolu képp ko ko bëgg da ci jëflante ala jéggi insha jamono ji ñi ngi bëgg a yàq suñu dëkk bi de mhm. waaw xam nga alxuraan dafa waxoon ni maa asaabaka min xasanatin fa min lépp lu leen dal ci lu baax man yàlla maa leen ko jox wa maa la kon politiciens yi nañ ñu dimbali. Hmm. bu fekkee ne intérêt réew mi képp moo leen ñor jurut bakkan di ci dee. Hmm. kon nañu xool ndaw ñi la doon priorité dund bi seer na saako ceeb kenn du ko jënd léegi. nit ñi bañ nga jël lekk ba regg kenn xamul kañ la. yow mi yor réew mi nga dugg ci sa palais taal sa kilim yor say abi ju tukki jàpp ni loolu la yàlla dénk bis boo duggee ci bàmmeel di nga dajeek yàlla te loo mas def dina ko bind. Hmm. kon nañu rafetal nekkin wi. ray gu bari gi nañ ko bàyyi. yàlla nee na wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jasaauhu jahannama xaalidan wa qadiba laali wa laanuhu wa aadda lahu adaban azim yàlla nee na képp ku ray nit te ko boo dee sawar nga jëm kon képp ku ray nit fii ci réew dee sawar la jëm kon nañu rafetal diggante bi te sellal suñu diggante suñu borom may wax ne rek képp koo xam ne bëggoo wujju waaw yow mi nga xam ne bëggoo wujju uh-huh. téeméeri dayuba yi ak fukk ak juróom benn su ma la ci su ma la ci yi ba bind ko jox la ko nga suul ko fa ma la koy suulloo sa jëkkër bu takkun wujj sax bu tëddeeg moom day tële loolu lu may garanté la kon képp ku bëggul wujju na ñu seet si incha allahu taala ayca numéro téléphone Serigne Maka Diakhaté mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di ko jot sëñ bi jigéen gu bëgg jëkkër ak jigéen goo xamante ni am na jëkkër mais doom la mënta am dégg naa secret boobu yàlla daf lool waaw xam nga dafa am lu ñuy wax arrabit ak xaqmul jinsi yi mooy ki nga xam ne dañ koo takk bu muntu am doom ak nga xam ne duñu am doom kon loolu xool waaye bu la xoolelee ba pare ba a mën la may nga jël biir su la ba kere ngay ngay la yow xam ne sa amuk doom dafa bari maanaam da ngaa nef ku ne xam ne ne planning familial bi baaxut yor nañ secret boo xam ne bu ñu la ko takkalee ci benn xobu garab lañ koy def boo naanee benn xob bi atum yàlla doo ëmb boo naanee ñaari xob ñaari at doo ëmb boo naanee ñett xob ñetti at doo ëmb nit ku nekk yaay xool ni ma nangami at yi laa bëgg a toog du ma ëmb bu ma la ko joxee nga naan ko loolu doo ko ëmb waaw loolu planning la te naturel la dañ koy liggéey yow mi nga xam ne da ngaa a am meew da nga yorug jur ay nag amuñ meew am na secret bu ñu ko defee ci mburu ñu lekk ko dañuy am doom waaye ñu wax ne dafa bari ay njabar yoo xam ne nit ñi dañ ko war a xam xàmmee li ñuy wax njabaru tafriq mooy sihru tafriq la ko arab di wax njabar gi tàqale diggante xarit ak moromam diggante baay ak doom diggante jëkkër ak jabar diggante nit ak patron kooku dafa am koy liggéeyee te jamono bi nga xam ne maam liggéey nañ ko dafa am nu muy manifesté ci nit ki dafa am la ñuy wax sixirul hawatif mooy nga nekk fii sa morom nekk Europe nga bëgg koo liggéey dafa am noo koy defee dafa am wax sixirul xam ne day tax nga amee jàngoro ay picc wala nga amee taab am wax maanaam sixirul junoon njabar goo xam ne bu ñu la ko defee da ngay dof am la ñuy wax sixirul xumóol mooy njabar goo xam ne da giim amoon nga société ma ngay fay da ngaa sawaroon tayal da ngaa jeex danga ngaa amoon ñàkk kooku dafa am nuñ koy defee am nañu wax sihru taxiyil mooy njabaruk imagination mooy ñi nga xam dañuy tiit bu ñu nelaw que ça soit muy xale wala dara loolu lépp dafa am nuñ koy defee kon yenn xeeti feebar yi nit ñi dañ ko war a xam di ko leeral nit ñi di leen wax ci yenn structure lañu war a jaar ba mu wér waaye képp ku bëgg a am doom wala nga bëgg a am jëkkër ak loola mën a jàpp ñetti weer am jëkkër bu dee doom di nga jël biir ci kàttanu ànd ak dooleem dem ba ca làmb ja ñu nax ko euh, daan ko euh, boo xoolee ñaar ñi di bëri nii muy diggante Sokk ak euh, kii di Franc ñoom ñaar ñëpp am gannaaw am doole mais toujours dañuy gis ne làmb fañ ko foogee rek saa su nekk du demee noonu chaque instant rek war mën naa am ci làmb ji. xam nga loolu li ko waral mooy ñàkk gàllaaj kaaraange dafa doon lu baax te nit ñi dama leen wax dañoo war di fayantoo gis nga boo nekkeek nit mu doon sab noonu moo xam ci société ngeen wala kër wala ngeen bokk ndey ak baay deel fayantoo moom loolu yàlla moo ko wax yàlla moo ni walakum fil xisaasi xayaatun yàlla nee na bu ngeen bëggee am sécurité bu ngeen bëggee am jàmm da ngeen di fayantoo looloo tax mu wàcceeb aaya ne wa katab na alayhim fiiha anna nafsa bi nafs wala ayna bil ayni wal anfi bil anfi wal lusna bi lusni wa sinna bi sinni wal juruha qisaasun fa man tasaddaq bihi fa huwa kafaratun lahu wa man lam yaxkum bi ma anzala fala yakum zalimun yàlla nee na nit nañ la ku jam nit nañ ko jam ku xoos nit nañ ko xoos ku dagg nopp nit nañ dagg sab nopp yàlla nee na képp ko attewu nu dul nii ab tooñkan nga kon ñaan nañ jéggale du dëgg yàlla nee na wa in xaaqabtum fa xaaqibuhu bi misli ma xuqibtum bu ñu leen ngeen di fayu na ngeen fayu lu toll ne li ñu kon yow mbër mi nga xam ne dangaa bëgg a taxaw ta doo daanu yaa xayu yaa qayum taxaw ta doo daanu combat boo dem am victoire képp ku sàcc képp ku tibb sab tànk ngir bëgg laa daanu képp ku ko bëgg suñ bi da ngay ndomba gi loolu koy leer na ndomba gi ndomba la koo xam ne demal xare boo demee di ñëwaat uh-huh. ndomba gi képp ku dem xare boo demee di nga ñëwaat uh-huh. bu la police dee seet taxaw fii takkal ndomba nga génn da leen romb uh-huh. milliards yi boo ko lekkoon du mujj fenn luñ la jox moo xam poisson takkal ndombe gi boo ko lekkee da nga ciy génn kon yow mbër mi nga xam ne bëgg nga ku ci bëtte sa tànk alko wala ko sàcc sa ngemb alko da takk ndombe gi ah, bëgg naa nga dugg ci laata ngay tàggatoo waaw xam nga boo demee ci mbaam rëdd wu ñuul wi ci ndigg la xam karaw googu day ñuul uh-huh. karaw googu buñ ko jëlee bind dara jox la ko nga suul ko ci tefes gi kañ tëj du génn guddi googu day génn wala ka ko fu tëj bu ko génnu day faatu loolu laa ci mën a leeral insha allahu taala bu loolu weesoo rek ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di leen a ngi ñëw di ñu dékku ci xeet wi fu ngeen mën a nekk yàlla na sutura waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aja mbokk waxtaan wu am solo bi sëriñ Màkka Jaxate waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante nii njariñ la nekk waxtaan woo xamante nii ngëneel la numéro téléphone yaa ngi noonu affiché di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yi yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jëy Muhammadu Rasulullah